salaamaaleykum seen bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu lay fay bu baax. Euh, comme niñ ko xamee yëkkatil micro bi. Euh, réew mi fi mu toll nii jaxasoo na. Hmm. ndax ku ne xam na ni élection présidentielle mi waroon am 25 février bi. Hmm. Euh, le président de la république génn na fan yi passé hmm. wax que ni élection yi du mën a am. mu wax ay motifs yu bëree bëree bëri. sénégalais yi nag boobu ba tey ñi génn di ñaxtu ñii ñi ngi def liñ mën ñii ne dañuy continuer seen campagne tolluwaay réew moom yow actuellement lan nga ciy wax. waaw comme ni nga ko waxee man moom toll waay réew mi. saa su ne yëkkatil micro bi saa su li may wax si tolluwaayu réew mi rek. man lépp lu ci mënti am rek man jàmm laay ñaan. Mm-hmm. tey damay sàkku si damay ñaan chaque jour ne rek yàlla na mujjee si jàmm daal man chaque jour daal loolu laay wax quoi. Mm-hmm. man moom nekk ma fii di saaga kii di saaga kee. te contre naa aussi ñi nga xam ne dañuy saaga ñii di saaga ñee mais daal lép lu ci mënti am rek man damay ñaan yàlla nañ toog waxtaanee ko lépp après muj si jàmm Sénégal am jàmm ndax jàmm daal moo ñu soxal quoi. man daal loolu laa gis daal man daal wax dëgg yàlla loolu laa gis quoi. toog waxtaane boobu président woote na ko waaye ñoom dañoo gis ni amul njariñ ndax jamono yële toogoon nañ waxtaan mhm. te gis nañ ni lañ cee tënkoon yëpp dara amu ci ndax élection yaa ngi nii reporté nañ ko ba tax na ni ñoom li ñu wax rek mooy pour pour a am liñ bëgg waaw Cheikh comme comme li nga wax rek bu ñu wàccee si terrain bi forcé a am lu ñu na dinañ dem ñu euh, yi dëgg la ñoom xëy toog bëggoon nañoo toog waxtaan xëy jëriñul dara mais man dama doon dama doon ñaanal rek ñoom ñëpp lañ toog deuxième sens tente deuxième sens xool rek xool waxtaan boobu lan ñuy apporter après quoi. mais am naa yaakaar ne bu ñu toogaatee waxtaan xëy na lépp lu si jàmm daal. réew mi nag benn réew la ñun ñoo ko bokk comme ni ko gars benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. dëgg ki fi toog xëy na jàmm la bëgg. Hmm. ñu bëgg a jëlit xëy na jàmm lañ bëgg waaye daal yàlla na lépp si jàmm daal man daal nañ waxtaan daal loolu jërëjëf kontaan nañ ci